asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñu safoo si 313 digital le site qui vous donne des informations fiables net ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen wax ne dal leen ak jàmm ci lu gën a fës dañ koy daal di door rek Idrissa Seck ndaamal Kajoor moom nag gis nañ ne daal di nay génn waxoon ci wàllu troisième candidature que ne président Macky Sall mënu ko def ñu gis itamit ki nga xam ne moom mooy ba Diattara daal di ci àddu ci li ni mel tey suba nag daal dinay écarté ki nga xam ne moom mooy Yankhoba Diattara ci vise euh, présidence de euh, réew mi li ko waral nag du lenn lu dul Yankhoba Diattara dafa daal di euh, dafa daal di défier laa ko mën a tuddee wala dafa daal di jaar beneen yoon bi nga xam ne mantoram di Idriss Seck daal jaaru fa ndax moom Yankhoba Diattara daal dinay dëggal valider candidature au président Macky Sall ginnaaw bañ ko invité ci ab plateau télévisé moom nag le ministre des sports sport euh, ba jataram moo daal di euh, dëggal yooyu le euh, kàddu yi nga xam ne moom Idrissa Seck nekk mantooram nekk ñoom ñu bokk parti réew mi moom Idi waxul li ni moom Idi li mu wax nag mooy que Euh, troisième candidature président Macky Sall mënu cee euh, dem ñoom ñaar yële nag daal di seen ay kàddu euh, daal di woroo maanaam bokkul benn yoon moo war a Idi daal di jël Idi en tant que président du parti réew mi daal di jël ab décision daal di remplacer ba jatara par Abdoulaye Ndoye mu ngi mel ni mu mel ni mbir boo xam ne Idi li nga xam ne ba Diattara daal dina koy wax daal dina koy metti loolu ba tax mu daal di koy remplacer. remplacé ak Abdoulaye Ndoye nekk coordonnateur euh, départemental de Saint-Louis moom la Idi daal di nommé euh, deuxième vice-président euh, du parti réew mi mu nekk tamit benn post bi nga xam moom Abdoulaye Ndoye am na ko Yankoba Diatara daal di perte bi les poste ndax kàddu ya nga xam ne daal dina koy wax ci mbirum troisième mandat buñ jugee foofu nag keneen ki nga xam ne daal dinay àddu ci wàllu euh, troisième mandat daal di annoncé itamit ab message jëmale ko ci euh, njiita réew mi président Macky Sall muy Taïb Socé euh, nekk koo xam ne kenn dootu ko présenté ci wàllum diine bi ak lam cay wax lépp moom Taïb Socé nag daal dinay ñëw daal di sermoné di sermoné ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi président Macky di ko wax ne ko moom nag Taïb Socé lam xamle mooy que président Macky Sall xaritam la mais nag n'empêche bu dëgg jotee euh, da ko koy wax moom Tahib Socé mi ngi koy xamal ne ko li nga fi def ci réew mi gisuñu keneen koo xam ne euh, def na euh, li ni maanaam njiitu réewum président Macky Sall def na fi loo xam ne ña nga xam ne ñoom ñoom ñoom la wuutu defuñu ko fi loolu nag Tahib Socé moo ko daal waaye nag mi ngi koy wax ne ko yeboo nga jeexal sa jeexital na nekk jeexital boo xam ne bu rafet lay doon nga xam ne ñoom ñoo naan la mën nga def euh, troisième mandat di la dugal euh, ci euh, tooxi duuna yoo xam ne amaana pour nga génn ci du nekk lu yomb dem na ba tey soo sax naan ko boo deful troisième mandat ëllëg ci biir mën nga dem ba am poste yoo xam ne international la loolu yëpp Taïb Socé moo ko daal di wax ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi dem na ci ba dem na ci ba ne ko itamit boo deful maanaam boo bàyyee troisième mandat ci suuf itamit sa ñëwaat ndakaaru biir ndakaaru mën a nekk ñëw boo xam ne ñëw bu neex la kon nag bul yàq euh, la nga xam ne bilan bi nga xam ne euh, jot nga ko fee def kon lépp loo xam ne jàppoon nga ko rek ci wàllu troisième mandat jël ko nga teg ko ci suuf mu ne kàddu yi nga xam ne moom tey soosee euh, daal dina koy yëkkati daal di koy jébbal ki nga xam ne moom mooy njiital réew mi président Macky Sall buñ jógee foofu dañuy demaat ci Cheikh Yérim Seck Seck Cheikh Yérim kàddu ya nga xam ne daal dina koy yëkkati itamit euh, ci ab plateau euh, télévisé moom Cheikh Yérim mi ngi xamle que ni euh, rapport IGF amul mu nekk mbir moo xam ne itamit doy na waar lool jamono yi la ñu weesu moom nag Cheikh Yérim Seck nekk ab journaliste yëkkati woon na ay kàddu di wax que rapport IGF bi am na bel et bien ba sax dem na ba naan sax président Macky Sall dafa mere woon euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Mame Mbaye Niang moom nag moom moom Cheikh Yérim Seck tey moo toogaat ci ab plateau di wax que ne euh, boobile rapport amul moom nag Cheikh Yérim la nga xamle la nga xam ne xamle la ko mooy que tribunal dafa defoon ab réquisitoire euh, dem foofu noonu ca euh, IGF euh, e, e ñu ne ko rapport amul dem IGE IGE ñu ne ko rapport amul dem OFNAC ñu ne ko rapport amul moom nag nee na bii le rapport IGF amul fenn moom Cheikh Yérim ba mu xeloon loolu nag ci la ko ñi nga xam ñoo ñooy patriote yi daal di génne les vidéo bi nga xam ne Cheikh Yérim maanaam daal di koy vaar Eh, di ko wax ne ko yaa fi yëkkati woon yii kàddu eh, tey nga yëkkati waat yii li kàddu mu ne kàddu yoo xam ne waroon na bu baax a baax a baax te amaana xaaruñu ko woon eh, ci journaliste bu mag bi di Cheikh Yérim Seck VAR nag jamono ji mën naa ne dafa xew ndax ku wax naka sudul noonu rek ñu daal di lay VAR moom Cheikh Yérim nag daal di lay jotaat li nga xam ne moom mooy ab dosam buñ jógee foofu itamit dañuy daal di dem ci Ousmane Diagne ginnaaw gis nañ nag dañ ko convoqué woon ndiki démb lañ ko daal di euh, convoqué woon moom Ousmane Diagne nag amuñu woon ay euh, nouvelle am waaye nag la nga xam ne jot nañ ko ci euh, ci nouvelle am mi ngi wax que ne moom sax moo publié ci page Facebook am di xamle que ne Antoine Félix Ndiome nekk ministre l'intérieur moom moo wax nañu jàpp ki nga xam ne moom mooy Ousmane Diagne moom nag Ousmane Diagne lam xamle mooy que moom nee na du dem wuy ji euh, ci biile euh, convocation ndax euh, nekkul leen benn convocation lu dul ci langum politique kase la convocation politique la te moom li ni mel du ko dem wuy ji ndax mi ngi wax que ne ay ah, loi est une injuste est une justice injuste nul n'est tenu d'obéir mu nekk kàddu yi nga xam ne daal dina koy wax ndax moom jàpp na ne euh, bi le mbir injustice totale la moo waral nee na du wuy ji ah, bii les ah, convocation mais nag am na ci ñenn ñi naan ko ah, te nga dem wuy ji moo gën ndax ku ne xam ne ne bu la joxee ab convocation boo wuy jiwul la la cay fekk ku nekk xam na ko mais nag ñenn ñi ña ngi koy diggal naan ko toogal bul dem fenn ndax li nii injustice totale la mais nag nañ xool ba xam ana nan la Ousmane Diagne di lijjante bi li bire mbir ba xam day dem up pas l'essentiel mooy que dinañ leen ko toppal bu euh, baax a baax a baax nekk na daal mbir moo xam ne patriote yi jamono ji euh, nañ leen di jàppee euh, jéggi na dayoo comme ni ko ñenn ñu bëri daal di xàmmee ak tamit ñu bëri di gisee injustice bi nga xam ne ñoo ngi koy teg ca kaw patriote yi rawatina ña nga xam ne ñoo bokk ca parti Pastef fii la ñuy daal di wàcceewee suñu ay kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax a ba di leen joxaat euh, dig daje ndikki ci kanam ak yeneen i information waaye nag bu leen fàtte di abonné si euh, 313 digital